ngir waajal lu jëm ci campagne électorale bi mairie bu Pekes ak maire Moustapha la des ñu ci ginnaaw loolee tax nag mairie bu Pekes boobee doon wote ndaje mu mag fa ndaje nag moo nag li ko tax a jóg moo unité de transformation yoo xam ne da ko jagleel jigéen ñi xam ne ñoo nekkee ci commune bu Pekes ngir yombale leen seen ak liggéey mu nekk nag ndaje moo xam ne bëri na ay kilifa yoo xam ne nag tey woon nañ ko ku ci mel ni ndawul Mame Thierno Dieng nga xam ne moom la ñu dénk xam ne jëm na ci anam gi mu yëkkati fay kàddu tey nag xam naa da ngeen xaw a jaaxle ndax daan nañ wax waaye tey suñu mbégte tax na duñu mën a wax ndax présence u madame la ministre gannaaw kàddam yooyu nag ministre Ndeye Saly Diop Dieng nga xam ne mën nañu ñu jigéen ñi ak njaboot gi ndorteelu kàddoom mu daal di koy jëmale ci fësal ak bokkam ci diwaan gu ñu mel Ndeye Saly Diop Dieng nag manqué wul boobu ngir wax ak population bu nekkee foofee ngir ñu jàppale seen maire wax ne nag tey dañoo ñëw ci événement bu am solo parce que monsieur le maire li nga def ñëpp defuñu ko ah monsieur le maire defuñu ko parce que mu ne yi ñu ngi gën a valoriser ko tey jox ko te jëmmal ko nii son excellence président Macky Sall moo ko joxee woon keroog journée internationale de la femme ne madame la ministre damay ñëw ci journée bi ñëw ci benn journée internationale de la femme fa waaye sa bos dama ciy ñëw loolu cër la am Sénégal boo xam ne benn président ñëw sargal ma sargal jigéenu Sénégal yëpp jël ay mille mu lay amee joxe ko réparti ko ci zone yëpp réparti ko ci commune yëpp commune bu ne am ci cinq waaye ni nga ci def jëmmal bi ñu ko jëmmal communication bi ñu ci dugal loolu am solo ci ñun. monsieur le maire bu fekkee Moustapha Sylla di lim juróom-benni dëkk yi nga xam ni moom la ñu jagleel jumtukaay yooyu. lii ngeen gis muy bagage yi ñu war a di yëbbal jigéen ñi ñu jiitu léegi wax nañ ko loxoom diis na ci lool. muy juróom-benni transformation juróom-benni machine yi wàll yu ñu war a jébbal groupement yi juróom-benni dëkk. kon su fekkee ñun bi ñu faloo 2014 ba nekk 2018 ren mu des nañu benn mandat wala benn année ci mandat 5 ci ñeenti at yi ñun juróom-ñetti machine soq ak juróom-ñetti machine wala yóbbu ci dëkk yi. ñu ñëw ci benn année ñu jox ñu juróom-benni machine kon compare leen loolu. mu nekkoon nag ndaje moo xam ne nag dëkk yi nga xam ne ñoo nekkee foofu ñu bëri wuy si woon nañ ci woote Moustapha Sylla moom mi nga xam ne nag moo jiite bopp mooy ne bi di leen dégg yeneen i jumtukaay yoo xam ne dina ko jagleel yeneen dëkk yi nga xam ne jotuñu ci jotee.